internautes yi ñu ngi leen di di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak eh, team Equivox TV tey nag ñu ngi fii nii ci Devoir Liberté 6 yi ngeen nekk en ñu ñëw rek eh, jël si ay quelques impressions. xamoon ngeen ko tey moo nekkoon rek eh, procès Barthélémy Dias nag mu waroon dem wuy ji ginnaaw bi mu demee rek ci dernière nouvelle yi procès boobu ñu reporté ko ba mois de mars tey nag ñu ñëw fii juste pour am quelques impressions nañu ànd ak ñun ànd suñu caméraman ñu dem xooli lan la ñu askan bi lan moo ci seen xalaat. tout à fait. Ben, moi, je dirais que c'est juste ben, euh, ils veulent juste écarter euh, leurs adversaires, en fait, l'État, pour pouvoir, euh, je dirais, monopoliser le pays, ce qu'ils font actuellement. Parce que actuellement, tout le monde sait que la famille Sall et la famille Faye font ce qu'ils vont au pouvoir. vous savez. Donc si actuellement ils veulent euh, condamner Barthélemy, c'est juste pour les, pour les éliminer, pour ne pas avoir d'adversaire plus tard. C'est juste ça. Donc nous, en tant que citoyens, en tant que Sénégalais, on est contre. On n'est pas pour. Moi, de mon point de vue, je, je, je soutiens Barthélemy, quoi qu'il en soit. C'est le seul truc que j'avais à dire. tey jii ñu dégg euh, propos yi nga xamante ne ni le président Macky Sall euh, waxoon na ko euh, dans la semaine que ni moom bu yëgoon procès ñu ko convoqué woon le di novembre bi amaana du am parce que normalement dañ ko war a bàyyi rek mu dem ci li nga xamante ne moom mooy élection locale yi en tant que candidat tey mën nañ jàpp ni influence boobu noonu rek mu doon wax moom moo ñëwaat ba tax rek ñu reporter procès bi. Ah, ah, franchement loolu mu j'y crois li mu li mu wax noonu li mu wax noonu c'est juste pour embrouiller les gens rek mais ça tient pas debout ñun ñëpp xam nañ ne instant li muy def yëpp pour éliminer pour éliminer ko moom parce que gis nañ fi Khalifa Sall ak tant d'autres ñoo xam ne ñëpp ils sont passés par le même chemin donc voilà c'est juste benn benn euh, image floutée rek bu muy bu muy essayer de jàll ci kanamu nit ñi mais y a y a rien d'autre que bu on a l'habitude de dire que ni voilà waaye askan bi ay nitu violence lañu te tey quand même remarqué wuñu benn violence euh, ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Diaz il est parti en toute sérénité wuyu ji foofu noonu ci tribunal mais loolu yëpp c'est des euh, c'est des trucs yoo xam ñoom ñoo ko créé en fait du wax bu am bu bu tegu naan kii ñii dañuy dañuy yee fitna fan la ñuy yee fitna sénégalais ku la xam ku la mu gën a bëgg jàmm sénégalais amul ñun ñëpp jàmm lañ bëgg bi ñu ko tegee ci yoon du ñu gis benn violence ci mbedd bi mais bi ñu ko tegee ci yoon bu gars yi bu peuple bi révolté kenn mënu ci dara. c'est normal nit ku sonn nit boo ko buuxee ba mu sa ci mimi dina dina reculer dal sa kaw donc c'est ça. ñu ngi lay jaajëfal ba baax. jaajëf. ba mois de mars. waaw waaw comme projet bi li ñu ko waxee rek tey woon ñu reporté ko ba mois de mars baax na parce que euh, di indi jàmm quoi si Sénégal parce que tamit soo wootee projet foog nit ñi foog nit ñi jug jeunes yi jug foog ñu révolté wu quoi te loolu mën na indi beneen beneen beneen beneen beneen. beneen beneen violence dëkk bi quoi moo tax daal reporter bi baax na si waaw baax na si trop parce que Lamine kii Barthélemy euh, élément favori la si la si si kii si si ville Dakar waaw. alors ñu gis ni dafa dem wuyu ji te amul benn coow amul benn yëngu-yëngu boo xamante ne ni nañ ko comme bi amoon le 10 novembre. waaw si si waaw loolu mooy li ma wax parce que euh, suñu wootee foog jeunes yi jóg te jeunes yi suñu jógee dara mun na am puisque tey woote na dara yëngu nag ñu ngi sant yàlla bu baax. parce que tamit euh, ñun Sénégal jàmm rek lañ ci bëgg waaw te jàmm mooy doxal lépp quoi jàmm si la lépp xej waaw euh, tamit le 2 mars bi tamit dañuy dimbali rek bu ngir yàlla fekkee dañ koy dañ koy dañ koy woote ñu woote ko ñu régler problème bi une bonne fois pour tous quoi moo gën chaque jour ñuy woote xam nga xëccoo fii xaayo fii jeunes yi nekk fii ñi nekk fii xam nga moo gën quoi parce que tamit euh, projet bi dégg nga si lu ne dégg nga dégg nga dégg nañ si lu ne parce que bañ ne Barthélémy day xëccoo ville de rek la la la la la la la gars yi woote ne dañ koy dañ koy atte quoi te loolu tamit soo xoolee ba si biir biir du yoon quoi parce que nit ki mënoo dem ba nga xam ne nii euh, day woote day day woote day day woote ville de Dakar day day bëgg mairie bu Dakar nga ñëw dinaa da nga koy tëgal projet quoi loolu tamit c'est c'est injuste quoi vraiment vraiment vraiment c'est injuste. Aïcha ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf Fatou. Euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu fay. tey nag ñu ñëwoon fii rek eh, ci eh, Liberté 6 bi jël ay impression par rapport ak eh, report procès ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias tey nan ngeen ko jàngatee. waaw report bi moom ñun moom bettuñu parce que nguur boo xamante ne nguur boo xamante ne day jàmmarloo ak opposants yi opposants yi rek la amal affaire mais ñun moom ñu ngi leen di xaar amuñu dara loo xamante ne bett nañu Euh, le 2 mars bu ñu reporté euh, kii bi projet bi waaw ñoom am nañ lu ñu namm lu ñu namm mooy ñun xam nañ ko ñun population bi ñun xam nañ ko ñun nag euh, Barthélemy mooy suñu candidat boo xamante ne moom la yaakaar tey ak ëllëg waaw tey moom la ñu yaakaar te ñoom gouvernement ñu bàyyi lu ñuy def di xotal ay nit di jéem a tiital ay nit ñun. tiituñu defuñu dara ñu ngi suñu conscient tranquille defuñu dara waaw Bart na xam ne euh, population bi yëpp Dakaru ñu ngi ci ginnaawam waaw ñu ngi ci ginnaawam defuñu dara loolu la am lu may wax. yéen jàppale ñu tey jii rek dañ ko waroon a jugé mu mbir mi féete boor moo gën rapport yi nga xamante ne ñu ngi koy xool li ko mooy maanaam li ma la wax rek euh, xam nga euh, ñoom la rek ñoom mun nañ ko régler tey tey tey mu jeex. lu tax ñu rapport ko ñoom ñoo xam lu tax ñu rapport ko ñoom ñoo xam tey war nañ ko juger lépp euh, jaar ci yoon euh, ñu xam ne fu ñu féetee mais ñoom euh, lu ñu namm def ñu ñu yóbbu affaire bi ba mille vingt 2022 ñoom ñoo xam lu ñu lu tax ñu def ko waaw mais ñoom lu ñu def def def ñu ñu leen di xaar amuñu dara lu ñuy lu ñuy lu waaw sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëf maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. internet yi ñu ngi leen di jaajëfal gis ngeen li nga xamante ne rek mooy yenn témoignage yu sénégalais yi def par rapport ak euh, tey nag euh, procès Barthélemy boobu rek nga xamante ni rek dañ ko reporté ba li nga xamante ni moom mooy mois de mars ñenn ñi nag euh, ah, rafetlu nañ ko comme ñi nga xamante ne ñenn ñi rek jàpp nañ ni ay maguy politique la ñun nag ñu ngi leen di jaajëfal li lañ jox rendez-vous incha allah beneen yoon.